Louga lañu njëkkee tey ci suba ci talaata gi jëm ca Saint-Louis laata ñuy jeexal ca Richard Toll candidat Serigne Mboup njiitalu mouvement ànd nawle ànd liggéey daal dinay yaatal dox ni ki tey jii de maanaam caravanam si nag ak ñi nga xamante ñoom ñooy jaaykat yi comme ni mu koy defee ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllum dem ak dikk bi naka noonu tamit nappkat yi nekk ca Guet Ndar ñoom ñëpp ku nekk tegal na ko jafe-jafe yi mu am te bëgguñu saafaral ko. lu mel ne transport moom état bi daanaka moom da teg ci suuf. ba paase sonn kenn xamul li ñu nirool te dara lu ñàkk am liggéey bu baax paas yi baaxul oto yi baaxul sonn nañu lool amuñu dara. problème bël bi ay mille personnes dee na xanaa moom xanaa xanaa ñoom politiciens xanaa yëguñu ko ku si ñëw dig bël bi ku si ñëw ni bël bi bël bi bël boo toogee zéro. bël bi daal moom mooy suñu kii ak accord accord de pêche kese. jafe-jafe gi moom benn kase la Sénégal yëpp xam na nañu jafe-jafe doomu ndar doonte dëkkuloo ndar muy nun bël bi mooy suñu problème. accord européen yi yu noo seq ak accord européen waaw am nañ say jafe yu méttee métti ndax boo dee xool bëri na jën yu daan am fii gisatoo leen ndax loolu. mais xam naa ne moom mii ku ko jox réew mu liggéey waaw am nañ si yaakaar trop. gannaaw loolu candidat bi di Serigne Mboup bu mu leen dégloo ba pare teg na tamit li nga xamante ne moom lay proposé ci programme am ay engagement ngir daal di saafara li ni mel. man en tout cas ci sama programme mooy ñaar yi moom pêcheur duutu ko jooyati gaal gu baax ak euh, camion frigorifique. état bi fi mu jëm ak transporteur yi mooy rey lépp. ñuy ndamoo Dakar dem dikk ne day dem jëli passager li nga war a def mooy jënd ay oto subventionné ko jox ko transporteur yi organiser leen bañ mën a fay ko fay bu yàmb tali moom. dañ ko war di defaraat looloo tax ci suñ programme ñun si pôle yu ne day am direction yoo xam ne grand travaux la ñuy toppatoo grand travaux mooy tali yi mooy infrastructure yi xam ne nii moo jëm ci garage yi centres commerciaux yi en tout cas daal waxtaanu waxtaanu pël na nga baax waxtaanu chauffeur na oto baax tali baax ñu mën a dawal am lu ñu def seen poos mbokk yi jamono yi ñu wax ak yéen juróom-ñetti waxtu moo jot tey ci talaata gi ñu ngi fii nga xamante ne moom mooy ci Tongoor di fu soriwul dara Richard Toll daanaka ñaar fukk ak ñetti kilomètres moom moo dox ñu daal di yegg foofee ca Richard Toll fii nag boo leen xoolee environnement bi ñu taxaw ngeen xam ne ñu ngi ci digg àll bi au fin fond du Sénégal Euh, bés bi nag eh, bi ñu ko xëyee ba tey jii ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi dëkk ñu ngi doon xaar kii nga xamante ni moom mooy seen candidat di Serigne Mboup xaar ko nag ngir mu ñëw waxtaan ak ñoom safonte ak ñoom ñoom ñu jàpp ne kenn kott mooy seen candidat di Serigne Mboup fii ñu nekk nag boo leen ko xoolee bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu jot moom Serigne Mboup daanaka boo ko xoolee am na ci hectare yu bëri ci nga xam ne moom mooy suuf si di yëngu ci wàllum mbay mi xam ngeen ne acteur économique la moom Serigne Mboup nag loolu di firndeel gis-gis bi nga xamante ne am na ko ci lu jëm ci wàllum mbay mi ci lu jëm ci wàllum élevage te mu jàpp ne loole moo mën a tax Sénégal dem ci li nga xamante ne moom mooy développement